yi salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu képp fépp fu ñu waaye mën a seetaane rek ñu ngi leen nuyu bu baax a baax Sahel Network TV la fii ci Banjul Banjawaale Mbaye la sopp na bi mu bàyyi soxna Ada mu nuyoo Ada nuyu naa ñëpp di leen wax ne Sahel Network TV la waat ñoo dellu si waat ànd ak yéen si beneen programme si beneen yaatal. macha allah anti Aïcha. asalaamaaleykum àddina nuyu naa ñëpp képp kuy seetaan Sahel Network rek asalaamaaleykum. ah kon mbokk yi ñoo ko déggandoor ah, ñu am nag gan gu tedd fii ci biir kër gi incha allahu taala ah, muy ndaw loo xam ne doomi réew mi la juddu réew mi la ñu gën koo xamee waaye foo dégg buuba rek Aboubacar la ah, dañ ko dee code shot rek Aboubacar Jammeh la mu nekk ndaw loo xam ne fii ci biir réew mi la juddoo nekk ndaw loo xam ne mu ngi juddoo foofu ci réew ca tundi Brikama jàngee ca Brikama primary school ba waaye jaar Jamisa secondary nekk koo xam ne nag Brikama la juddoo waaye Banjul fii la yaroo tëral rek dañ koy bàyyi mu nuyuwante ak askan bi su boobaa ñu daal di soobu ci li nga xam ne moom mooy waxtaan bi suñ diggante ak moom sëñ bi salaamaaleykum. waaleykum salaam suma mag ju baax yi waa mag laa nuyu bu baax. ñu ngi lay delloo nuyoo. di nuyu suma sista Ada. di nuyu mm-hmm. Aïssa suma beneen sista. Mm-hmm. di nuyu caméraman bi di leen wax ne. Mm-hmm. kontaan naa si dalal bi ngeen ma dalal si Sahel euh, network TV mm-hmm. di leen wax ne kontaan naa si dalal bi bu baax a baax mm-hmm. loolu am na solo mbokk yi ñoo ko déggandoon waaye euh, monsieur Jammeh dañuy dugg rek ci ci waxtaan euh, dañ gis ne da nga bokk ci Jollof Ward Development Committee bi mm-hmm. ñu bëggoon a xam ci tënk rek maanaam comité ne maanaam nan lay nan lay doxee nan lay doxee ci yan tànk lay doxe waaw gàttal comité bi si tànk bu moo doxee mooy ne suñ gox bi moo ñu ñor Banjul général yi moo ñu ñëw daanaka waaye kenn ku nekk si gox nga bàyyee ko. waaw man maa ngi bàyyee ko gox bi nekk euh, Jolof Town moo jógee nekk Lasuwaaf. waaw ma doon ma bokk si euh, ward committee bi. Mhm. ma doon ku sawar lool si mbir bi parce que suma gox bi moom ma ñor. macha allah di àndaa suñu kansiloo bu baax bi koo xam ne tayalu benn boor. Mhm. ku actif la su daanaka fu mu taxaw ma taxaw fa. ci gàttal suñ gis-gis ci gox gi mooy ne daal fuñ ko fekkoon lañ ko bëgg a jëlee ñu yóbbu ko feneen fu jën a kawe suñ jot. Mm-hmm. waaw maanaam mooy ne. ñu ne leen ñu booloo ñu mën a seet luy dugal woon ah, jéemal woon bi kanam. Mm-hmm. te loolu buñ ko sosa dañ toog ñu ne leen waxtaan. dama gaawal wax bi rek. si mm-hmm. gàttal pour ñu mën a créer WhatsApp groupe boo xam ne. dina ñu mëna dimbélé ci yéna comme ñu dajalo meeting meeting yi leena say téxa téxa yi daf lañ lay tié waaw kéne ku mu ne mel man na jappo kenen jappo way ñu mhm. comme bi de idea né nañ ci top té whatsapp bu bo xamné mhm. suñu bari mi waxtaan lenen kéne ku nekk mu na sani idea am ak xalaatam rek waaw ñu tékal ko rek ci gàttal ku understanding bi doon lu gaaw propose lolu rek ñu doxal ko so lolu buñ ko sosé ben tay car ma sha Allah alhamdullilah yalla ñu sé sudural bu baax baax even ñu ko léegi gisuñ tamit gis nañ lu ndaw si lu ñoo yëngatu te alhamdulilah ñu ngi see sant yàlla bu baax euh, waaw man dinaa si sànni tuuti ma bëggoon laa laaj bu baax comme yaa si comité bi. Mhm. Euh, ma bëggoon a laaj yéen ban façon yi jafe-jafe ngeen di am when it comes to liggéey ak ban ban ban place ngeen bëgg a government bi gën see saxal pour jàppa si dimbale leen yéen ñu nekk si comité bi foofu noonu. waaw suma sista Ada naa sa war a Euh, mbir mi dafa doon lu doy waar. Mhm. xam nga ñu bëri dañ dee jaawale rôle kansilo bi ak rôle MP wala maire du mhm. benn. Mhm. kansilo bi is answerable to the mayor. député ñoom ñooy co-founder of the law bu ñoo doxalee dëkk bi. su daanaka soo seetee councilor bi is answerable to the mayor mayor is answerable to the central government. foog nit ñi understand loolu. waaw ñu ne dañ dee toog di ngaañee foog ne am na liggéey bu nekk kanciloo bi moo ko war a def déedéet hmm. ñun kenn ku nekk nañ bàyyi di toog di ngaañee wante naan diw defu fi dara defu dara nit ki da ngaa toog laaj sa boppam man lan laa defal suma réew mi hmm. buñ ne lan la ma réew mi defal ñun lii moo ñu tax a jóg hmm. ñun kenn ku nekk dafa bàyyi soxla bàyyi si lu moo yëngatu yëpp gis na gox bi dañ bugg liggéey ñun benn mbir la ñu yàlla dénkaane daanaka ñaar passé wul mooy fuur bu ñu am si tan bi ak xool bi ñu am. Hmm. te xool bi tamit alhamdulilah ki ko amee woon kooku turu ay di moo tax ñun ñu am ci ba ñemeñ def li ñoo mën a def tey mm-hmm. muy suma mag yi njaga jaame maa ngi ko nuyuwaale ndaxte moom moo koma bi di ay di ne naa fi sàcca xool mm-hmm. pour su ko defee ku am mitin wala ju sewi bi noonu nga mun ko faa indi mm-hmm. waaye bi jógee ñun ñu koma bi te ay di ne léegi moom nekkatu ci loxo si suñ loxo la nekka ñun waaye nag xool bi suñ ko naree bàyyi ni ko seetaan dafa mel ni néeg boo taxawal nii rek ko xool du la jural ni comment mi di ay jaana lii ne mun nañoo seet solution boo xam ne nañ si mun a meeg lu ndaw loo xam ne dañ ko fi bàyyal askan bi. Mhm. même ñun fi nekkul ëllëg keneen ku ñëw tamit. Mhm. dina xam ne ok ñu fi nekkoon lii lañ jot a liggéey te am na bu ndaw buñ fi bàyyi soo ñun tamit dañoo mun a sawar pour xalaat yeneen ci kanam. Mhm. ñun lii mooy suñu gis-gis bi. te yaakaar naa ne nu mu yaaga yaaga yéen seen boppam di ngeen teewee gis ñun su dañoo yëngatu. parce que xool bi ceeñ nañ ko. into various things def nañ ko SOPS. Mhm. te SOPS yi joxuñ ko any outsider ñu ko jox yëpp si gox bi lañ jógee ko ñii suñ sisters lañ ñii suñ brothers lañ ñii suñ nephew. so at the end of the day mu ngi mel ni ñun lu ñu so lii rek la. am na solo waaw waaye ku understand di nga ne ñii ñu ngi jël fi loo xam ne jëluñ ko. ñun tuuma luñ kenn waaye ñun gannaaw yàlla xam na ne ñun kenn ku nekk am na foo dee liñ ci jublu mooy ne ñu gis ne xool bi am na astur lu mu liggéey te nu mu yàgg a yàgg dañ koo tamit xëy naa nu mu tombee feebar bi daal ñuy ñaan yàlla yàlla génnee mu génnee ko si dëkk yi mu nekk waaw ñi dinañ mën a xam ñun fuñ nar a jëm. waaw xam nga bu ñëpp xamee fi nga dem doo gaaw a egg. waaw Matsa si loolu laa bëggoon a ñëw nii Buba euh, regarding to your work euh, lan ngeen si mun a wax euh, si COVID 19 pandemic bi ne. waaw Covid 19 pandémie bi ñu ngi dañ ma dañ ma si gis may joxe ay présentation as jëf toogu ñoo xam ne benn Banjul South ñoo ko jagle. waaye xam nga soo ne benn Banjul South bàyyiwut kenn. Mhm. man mii di wax ak yéen ci laa bokk. Mhm. waaye bu ñëwee si gox yi pour Hanover sanitisation yooyu. Mhm. ak yeneen bagages yi pour suñu able councilor bi fekk dafa tawatoon. so buñ ma ooyee man ne lii du ma sax lii moom nekk na loo xam ne pour ñëpp la. ma jóg. dañ ma fekkoon sax foog naa maa ngi yëg ak sama maa ngi doon resign benn hmm. ba information yu hmm. so hmm. biñ ma ooyee instant bi si laa jóg so lu ma daw ma ne lii ñëpp la soxal waaw bi ma demee ñu ne ma ñu expliqué ma ne ma lii seen kansilo bi leen ko indil waaye gannaaw moom gisuñ ko fi gis nañ la lekk mu ngi mel ni moom lañ gis waaye dañ lii kañ dafa mel ni ku mar nga war a naan tasee ndox soo mayee leen bii kañ waaw ñëpp benn la rek soo loolu laa ko jëlee ah, ma wax on di gesto la boo xam ne ndaw yi bàyyee ko bitim réew ak benn Banjul Sound ñu mm-hmm. si ñoom ñëw toog xalaat xalaat bu rafet boobu am si éne bu baax nag. parce que gars yi suñu def si lu ëppal loolu waaye nit ki sa doole fu mu mun a em nga ko mun a emale. Mm-hmm. so moo tax kaar macha allah luñ indi xebuñ ko waaye ko si koñ yi mm-hmm. ku fa demoon di nga gis boppi koñ bu nekk teg nañ fa loo xam ne di nga raxasoo. lu nekk ak fa. waaw kaar macha allah. macha allah waaw ah, loolu am na solo ah, comme li ñu li olof di wax rek ne eh, ndeysaan waxtu moom bu la xojee rek xoj nañu te moom miy toog ni ndeysaan borom yitte la borom soxla la ndax am na yeneen soxla yoo xam ne ah, jamono ji mu mi war a dem pour dem toppatoo ko euh, yan kàddu nga am euh, pour dénk ko askan bi ñu bàyyi la nga dem. waaw xam naa ne time bi xooj nañu comme ni ko waxee am na yeneen yu bëri yoo xam ne am naa su time amee dinaa leeral parce que ñu ne tànk si suuf jaan si suuf si gàttal li ma def mooy ne gannaaw time bi xooj mhm. ah, kontaan naa si invitation bi bu baax a baax ah, maa nuyu suñ kansiloo bu baax bi mhm. moom bi ma jox opportunité bi pour ma mun a teewee fii ñëw ama yan interview si mhm. yaakaar bi mu am si man mhm. ak kóolute yan na bu yaakaar bi tas ñu ko ñaanal insha di ñaanal comité bi yëpp ak gox bi yëpp bàyyi ma kenn Banjul jaay nuyu suma yaay ñaanal suma papa fi mu tëral yàlla suuf seeda si kawam ak yeneen papa yi yëpp di wax ne feebar bi maa ngi seen ñaan bu baax a baax képp ku nekk soo jullee nga ñaan yàlla yàlla tegil du ko tegil ko dëkk yu nekk yëpp su ko defee dig si delluwaatu normal parce que nu mbiri di demee nii doy na waate mm. ñun mooy ñeneenteel ajuma xaw ma ñetti ajuma kenn demul julli mm. juma te ñun loolu xamuñ ko waaye tamit su ngàntaan ñëwee. ñu ne fajoo ngeen feeb ah, fajoo ngeen. fajoo ngeen fajoo. waaw ni ko olof yi wax. dëgg la soo kàr macha allah alhamdulilah kontaan naa bu baax once again daa jaarale nuyoo bi si si yow bi ba ci li ba si caméraman bi yéen yëpp Ada Aïcha yow Wally yow suma koto bu baax nga yow yàgg naa la seetaan lu tey ku yëngatu nga ci suma style nga bokk si masha Allah waaw waaye bi passé fii mu àgg fi ngeen jot insha Allah waaw jërëjëf waay kontaan naa jërëjëf yow tam eh, parce que eh, waxtu dafa seer te damay faral di wax ne nit ki bu la mayee benn minute ci waxtoom rek may na lu léppam mm-hmm. euh, ñu koy sant di ko di ko jaajëfal li ñaan yàlla rek yal na nu yàlla defal jàmm ak euh, xiiwal euh, man la woon Mbagnick Wally Mbaye sopp na bi maak anti Aida ak anti Aïcha ñu dalal fi suñ gan gi Mr Aboubacar Jammeh mbokk yi jërë ngeen jëf